julde baax ñoo ngi ci rompaye alom ci Touba Eh, eh, daral bi sha allah sant nañ yalla bu baax sant borom Tuuba bu baax baax deug tam yalla yoron nañ fi ay kar ak nak yep yëpp nañ ko ngir magal gi ñu jappalé gan yi rek bu ñëw ñu baña sonno ci ci wër gi ak ndawal yooyu yoy waaw wa si wala boobu daal la ñu liggéeyee ñun waaw ñu baña sonno dal bu ñu wàccee ñu mëna am lu ñu jënd wa ma sha allah yéen lay dañu ci gis suñu bop mom baax baax waaw yi am nañu ay soixante quinze soixante dix ba cinquante sax am na waaw nag yi nag yu sa ça dépend ci bu ma toll rek am na yu six bu cinq am na ba trois cent am na waaw ci qualité gi rek waaw ak ak suuraay gi waaw non dara bi moom pour maanaam tey fii mm, kii la bi kii bi la rek màggal bi moo tax ñu def ko fii waaw mënuñoo jàll ci biir dëkk bi quoi waaw loolu moo tax ah ñoo démb rek jëpp démb ñoo ngi fi waaw léegi nag bu goonee ñu ñu ñibbi rek buñ koyaatee ñëw waaw waaw sant yàlla bu baax non magal bi moom neex na waaw macha allah magal suñu borom Touba moo waral moom moom lépp waaw moo ko waral gis nga nu ma demee nii waaw ñu ngi koy sant moom tamit bu baax a baax waaw waaw ku baax fii moom wax dëgg yàlla moom mooy euh, rond-point alam ga waaw dañu ñëwoon fii di jënd ay gàtt rek euh, ngir def ko ci bis sëñ Bamba bi di ngir santale yàlla sëriñ bi ndax moo ne ko képp képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma santale yàlla bis bu de jot nag waaw lu ñu def xam nañ ko waaw waaw gis nañ daal lu tane ñu jël nañ ko daal waaw dañoo ñëw fekk nag xar yi xaw a wàññeeku rek moo tax waaw mais sant rek sant sëñ Tuubaa rek waaw sant di siyaar ñëpp nag tey ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool ak bépp kilifa diine waaw ñëpp na ñëpp am jàmm barke sëñ Tuubaa Cheikh